le 18 janvier 2023 18 janvier 2023 cela veut dire quoi cela veut que dès la disponibilité de l'ordonnance de renvoi le procès aurait pu être audiencé dans les 15 jours voire les 3 qui suivent c'est-à-dire courant du mois de février les de notre pays en l'occurrence la chambre criminelle a opté de ne pas le faire parce que immédiatement après les avocats de Ousmane ont saisi la cour d'appel, notamment sa chambre d'accusation, pour annuler l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Tous les habitués des prétoires, tous les avocats, tous les gens de justice savent bien que la saisine, en l'occurrence de la cour d'appel, n'était pas un obstacle à la programmation du procès. Pas du tout. Mais le juge a fait l'option d'attendre que la chambre d'accusation statue. La chambre d'accusation a rejeté la demande des avocats de Ousmane Sonko en mars 2023. Là aussi, il était possible à la chambre criminelle de programmer le procès et que le procès se tienne. Comme disait un journaliste l'autre jour euh, euh, lors d'une rencontre avec la presse, ce procès qui a tenu en haleine l'opinion nationale et internationale. Eh bien, les avocats d'Ousmane Sonko ont introduit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre l'ordonnance. Tous les praticiens du droit savent bien que ce pourvoi devant la Cour suprême était manifestement irrecevable. Il s'agit d'ailleurs de cas dans lesquels l'irrecevabilité manifeste est juste constatée par le greffier de la Cour d'appel. On n'a même pas besoin d'aller au fond <laughs> avec la juridiction. Et bien, lorsque la Cour suprême a été saisie, la Cour suprême aussi a pris le temps d'examiner ce pourvoi. Et finalement, c'est seulement lorsque le pourvoi a été rejeté, au mois notamment de mai, que le procès finalement a pu se tenir. Donc il n'y a aucune précipitation dans l'examen et le jugement de cette affaire. Aucune précipitation, bien au contraire. J'aurais pu dire la même chose pour l'affaire de diffamation qui a opposé deux citoyens sénégalais, le citoyen Mambéignan et le citoyen Ousmane Sonko. Une affaire de diffamation. Bien des journalistes, pas tous heureusement, mais bien, bien des journalistes sont habitués au cas de diffamation. Pourquoi Parce que les journalistes parfois écrivent de bonne foi des choses qu'ils croyaient vraies. Et il arrive que ceux qui sont cités dans ces écrits portent plainte contre ces journalistes pour Et tout le monde sait que les procès de diffamation se tiennent très rapidement. Eh bien, dans l'affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, vous avez tous assisté aux péripéties de cette affaire. Renvoi sur renvoi. Renvoi sur renvoi, de telle sorte que même l'opinion en avait marre des renvois. Pourquoi il y a renvoi? C'est par souci de respecter les droits de la défense. Parce que ce sont les avocats qui demandent les renvois. Et quand les avocats demandent les renvois, les juges souvent aux avocats parce que par souci de respecter les droits de la défense. Et là aussi, on a vu toutes les péripéties. Donc il n'y a aucune précipitation dans le traitement d'affaires dans lesquelles ou d'affaires qui concernent des responsables de l'opposition. Il se trouve juste, et je vais terminer par là, monsieur le Premier ministre, et sur ce plan, c'est dans tous les pays du monde. Vous savez tous, vous suivez tous ce qui s'est passé en France à la veille de la présidentielle. Euh, vous suivez tous aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. avec un ancien président euh, qui fait l'objet d'inculpation chaque fois qu'un homme politique est impliqué dans une affaire devant la justice on crie à la politisation et on crie à la volonté de l'éliminer pour la compétition présidentielle ce n'est pas qu'au Sénégal c'est partout dans le monde dès lors qu'un homme politique est impliqué dans une affaire judiciaire on considère que en réalité l'affaire judiciaire est inventée de toutes pièces juste pour l'éliminer de la course à l'élection notamment à l'élection présidentielle mais euh, c'est comme ça voilà il arrive souvent que des hommes politiques émaillent à partir avec la justice ça complique les, les, les affaires ça les rend plus délicats mais l'État doit être debout et les gérer avec l'autorité et la fermeté qu'il faut je vous remercie